salaamaaleykum euh, monsieur le président maa ngi lay nuyu monsieur le ministre euh, en charge des des relations euh, des institutions maa ngi lay nuyu suñu dëkkandoo yi euh, di nuyu mes mes mes les mes collègues députés di wax ni tey ji bés bu important la man sax est-ce que dinaa wax ak sénégalais yi je pense que je vais adresser un message à monsieur le ministre nga xamante ni day jël fii li xew par euh, euh, parlement mi dem yóbbul ko président Macky Sall boo demee monsieur le ministre nee ko Nafissatou Diallo bu bokk groupe wallu nee na ñu reporter élection yi ba saytu lii ndax on parle de la république on n'est pas dans des questions bassement électoralistes dañu ni l'administration est infiltrée la république est en bas dëkk yi tàkk yépp Afrique lu ko tàkk amul état aujourd'hui on parle du du sabotage aujourd'hui de notre état suñu père fondateur yi ñu tabax ba Sénégal nekk exception loolu la ñuy wax ndax bu ñu toogee bay xalaat ni juge constitutionnel wala di xalaat ni war nañ saytu ci ñoom dañu tànn lu leen neex wee la démocratie xanaa balaa nga naan naam ne fa ngay am état am république ba pare mun a wax waxu élection parce que tey jii si des juges se permettent d'éliminer parce qu'ils ont été corrompus si c'est avéré un danger pour ce parce que mooy ëllëg nag jarul sax ñuy deful dossier de candidature ah. mën na ñëw rek juge bi xool ne yow mën nga jàll yow mënoo jàll où est la démocratie ma ni nañ reporter élection yi saytu décalé ko de quelque mois man la may wax dama ko ñeme ça va au-delà de Karim may Wade ndax Karim may sowaat ni ñu ko tooñee loolu dinaa ci ñëw après mais on parle de l'état qui fait que le Sénégal nekkul dëkk boo xam ne am na diamant am na or mais tey jii mooy vitrinu Afrique noire parce que dafa am bu état bu fort bu président yi ñëw yëpp consolider am des gens des voyous qui ont infiltré l'administration sénégalaise bëgg saboter suñu république nañ ko raxas ba pare soog nga xam lu ñuy def ndax dem élection boo xamante ni ah ku falu xamuñu ndax moom balaa moo falu dafa ko corrompre xamuñu lu xew am na xamuñu ñu nekk ci liste bi pour la ñu seppi leen dugal ñii alors que le droit est très clair balaa ñoo dem di am président cinq ans boo xamante ne ma ngay neexal wala wala ay candidats yuy neexal ay nit euh, ay ay juge constitutionnel wa kooku boo amee réew mi yii ngeen di wax ay commission d'enquête parlementaire fond Covid waa boo amee président buy korom pour falu xanaa kooku lu muy toppatoowee fond Covid on a besoin d'un président qui a de l'éthique on a besoin d'une république avec des institutions auxquelles on peut faire confiance loolooy débat bi ne détournez pas le débat sur des questions bassement électoralistes et d'intérêt euh, politicien wala am na ñoo xam ne nag dafa am lu ñuy ñëbb ndax euh, triangle bi foog ñu ñëw fii indi ko triangle bi def lii foog ñu ñëw indi ko fii ñu leeral ko ñu xam li xew Sénégal yi mën a xam li xew Sénégalais bu ñu leen di wax ñu am la caution de l'Assemblée de tous les députés du ñu wax bu boobaa PDS rek a wax du ñu wax bu boobaa PDS ah ay preuve am lii wala lële bu boobaa buñ ko indee ce sera député yi fi toog yépp leur représentation onze députés yi ñooy leeral ni gis nañ lii wala gis dégg nañ lii foofu la ñu toll balaa ñu naan naam dañ fay nekk mënuñu nangu tey ñu dem jàng ci école sénégalaise yaru ci école sénégalaise euh, construire notre pays toog fii assemblée république bi di effondré wu ce que des gens ont mis 60 ans même bien avant les indépendances à construire par une administration infiltrée une administration corrompue ñu ne tey dañ ko waxtaanee loolu du fi amee dañ koy waxtaanee te may ñaan monsieur le ministre nga wax président de la république nous demandons un report mu nettoyel ñu li xew ci réew mi na nettoyer lépp ba mu set ndax moom dañ ko ko joxoon ci yenn benn anam il doit rendre le le pays bu koy joxe daf ko war a joxe ci benn benn anam c'est son devoir et j'en appelle à à à sa sénégalité à sa citoyenneté à son amour pour la république pour mu régler loolu donc dama bëgg ñëw ci on ne pense pas au peuple certains ont dit euh, oui on doit penser au peuple le peuple c'est qui le peuple c'est qui on pense pas un peuple Abdoulaye Wade mënoo ko ko wax ndax tey di boo toogee ba ñuy voté isoloir am ñu mën a voté ba mu leer Abdoulaye Wade de moo moo ci xar euh, xartu bayam tëdd ñaata yoon kaso ah si nu on a fait le peuple sénégalais ñun ñun ñëwuñu bërki démb yàquñu peuple sénégalais dañu defaral le peuple sénégalais nous faisons partie de l'histoire de donc Karim am fi mbokk wala Ablaye Wade ne pense pas euh, ñun PDS on passe pas au peuple parce que ñun on va au-delà des questions politiciennes dañu xalaat république bi dañu xalaat peuple bi quel peuple voulons-nous quelle république voulons-nous est-ce que nous voulons simplement aller à des élections wala dañu bëgg tey am réew moo xamante ne un Sénégal debout un Sénégal qui est un exemple pour l'Afrique loolooy débat bi